man la Pape Songde Diop man maay maire commune Gandiaye euh, damay tàmbali d' abord euh, remercier leen euh, ci honneur bi ngeen ma defal pour invité ma seen seen seen plateau bi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal aussi peut-être bon avenir pour seen seen seen télévision bi li ñu mun a wax ci situation corona bi mooy dafay loo xam ne dafa dal ci ko àdduna bi yëpp dal ci ko Afrique na Sénégal hmm, ba mu ñëwee euh, président def na appel taxaw ci taxaw bu mu ci waroon taxaw muy taxawaay boo xam ne euh, ñëpp rafetlu nañ ko ànd ceeg opposition bi ànd ceeg kilifa diine yi ànd ceeg kilifa aada yi ànd ceeg tous les segments de la population ñu jox ko seen kàddu jox ko seen bopp boobu ba léegi ni mu koy doxalee aussi muy lu rafet euh, gis nañ ceeb bi ni mu demee lu ñu la ci mun di wax coow li bëri na mais lépp donc Sénégal yàlla ñuy musal ñu ngi contenir maladie bi euh, fii si Gandiaye euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax amaguñ fi benn kaab boo xam ne déggugum nañ ko hmm, waaye terewul aussi ba mbir mi amee ñun dañ ci def suñu wàll en tant que commune. génne nañ loo xam ne dimbal jàppale nañ ci population yi ci wàllu ay ceeb ci wàllu ay maanaam euh, matériel bi nga xam ne moom mooy mun a tax nit ñi mun a xeex ak euh, ak euh, Covid bi ay gel ak masque ak tout ça def nañ fi sax loo xam ne c'est c'était loo muy loo xam ne peut-être bëri ñu ko gis dañoo jël ak coopération belge bi LuxDev ñu jël masques yi ñu waroon joxe yëpp jox ko tailleur yi gànjaay yi ñu liggéey ko 4000 masques euh, eau de javel bi ñu waroon jënd ñu jox ko groupement féminin yi ñu liggéey ko saabu bi ñu jox ko groupement féminin yi ñu liggéey ko ba nga xam ne loolu rek créer na richesse boo xam ne dafay loolu la ñuy wax économie circulaire ci biir ci biir dëkk bi donc muy vraiment économie de crise euh, bi loolu passé aussi continué nañ di taxaw bi école waree ubbi désinfecté nañ tous les euh, écoles yëpp. ah dem nañ fa désinfecté désinfecté marché bi à deux reprises désinfecté lieu de culte yi jàkk yeeg jumaa yi fépp foo xam ne nit ñi jaakaar nañ ne nañ fa daje ñu désinfecté ko école yi ñu jox leen ay lave-mains gel et pour que vraiment élève bu ne amoon na je crois trois masques ak élève kii pour que ñoom ñu mun a ñu mun a jàng donc euh, loolu def nañ ko ci terewul aussi ñu ngi def. Euh, Euh, sensibilisation ci ci biir dëkk bi euh, jaarale ko ci relais communautaire yi bàjjenu gox yi jaarale ko ci euh, peut-être les jeunesses jaarale ko ci segment yi nga xam ne yëpp war nañ mun a waxtaan ak nit ñi ah léegi nag mbir mi mu ngi noonu c'est pas que ñun amuñu cas que dañu war a relâcher tey jii nii dañ war a gën a taxaw pour xeex feebar bi rawatina bi ministre de l'intérieur defee benn message bu fort joxe ay directives dañoo fas yéene gën a tënku ci loolu c'est vrai que c'est difficile mais ñu ngi wax ak jeunes yi gis nga tey ni ñu ànd ak ñoom noonu la ñu bugg di ànd ak ñoom pour sensibiliser leen wan leen ne yéen feebar bi xëy na yabu leen mais yab na seen i waajur yab na seeni maam yab na seen i baay yab na seen i nijaay te kat ñooñu dañu ñoo xam ne dañoo war a nekk fii ndax mag mën naa bàyyi ci réew et que feebar bi bu ñu bu ñu buñ ci taxawul mun na fay yàgg bu ñu sàgganee mun na fi yàgg bu ñu topp mesure barrière yi mun na fi yàgg waaye nag bu ñu toppee digle yi ak tere yi je crois que feebar mun dem yàlla na dem ak jàmm ñu continuer ci liñ nekkoon ndax lii bu dul feebar bi rek jàngoro économique bi jàngoro social bi muy indi moom moo gën a moo gën a moo gën a kii àdduna bi dafa taxaw fi mu nekk nii te te lii baaxul donc buñ demee ba avion naawatul. jàkka yi ñu tëj ko màkka ñu tëj ko église yi ñu tëj ko c'est que ah lii kat loo xam ne duñ ko war a war loo waaye nekk nekk nekk ndaw lu waaye nekk nekk xale lu waaye waaye nekk nekk xalaat loo ñàkk gis affaire bi yaa ngi gis ci télévision yi yaa ngi déglu ci rajo yi yaa ngi gis ci internet bi que ni feebar bi mu ngi progresser donc ñu bugg ñaan ñëpp rek ñu respecter mesures barrières yi pour que ñu mën a gaaw génn ci ci ci feebar bi